tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara jiñ jiñ leen bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah nacmuduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi laa falaa mudilla la waman yudlil fala hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala buithtu li utammima makarima al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki téléspectateur fkr92.com seen émission bu rëy boobu di ma sopp rasulillahi dikkat na fi ak yéen di waxtaan ak yéen ci wàllu koor macha allah waxtaanee nañu woon faratay koor waxtaanee nañu woon sunnay koor léegi nag ñu bëgg ñëw ci li nga xamante ne mooy li ñu sib ci koor nga xamante ne li ñu sib moom boo ci nekkee boo xuusee rek mën nga dugg ci koor gu yàqu kon nañ ko moytu li ñu sib ci koor li ñu sib ci koor mooy makruhaatu saw mi li nga xamante ni koor dañ ko sib ñu bañ ko def parce que boo duggee ci lu ñu sib rek moo lay yóbbu ci luy yàq koor waaw moo lay yóbbu ci luy yàq koor bu ko defee bu njëkk ba mooy al mubalagatu fil madmadati wal istinshaq inda al wudu li qawli sallallahu alayhi wa sallam wa baalig fil istinshaq illa an takuna saiman sallallahu alayhi wa jamono bu nu wooree ñu góor góorlu ba bu ñuy sarax ci njàpp nga def ko ndànk waaw mubaalaxatu waaw sopp nañu boo woorul nga sarax bu baax a baax waaye nag bañ ndox mi gaañ la ci bakken ak gallax bu baax a baax a baax a baax jamono booy sarax booy sarax boo wooree nga def ndànk parce que sarax bi bu amee doole rek mën na jaar ci bakken yi jaar ci narin yi wàcc te bu wàcc dugg sa biir sa koor yàqu na te bu wàccee dugg sa biir sa koor yàqu na donte benn gutu ndox la kon booy sarax ci weeru koor booy sërndiku nga def ndànk ndànk ngir bañ ndox mi yéeg ndox mi bu yéegee mën na dugg sa biir bu duggee sa biir koor gu yàqu loolooy mubaalaxatu fil mad madati wal istinshaq ci bu gallax ndiku ak ci sarax ndiku fil mad madati ci gallax walla wal istinshaq ak ci sarax booy gallax weeru koor na nga def ndànk bul jëkk-jëkk rek lok ndox mi rek buruusu ko noonu burusu bu gaaw gaaw noonu am na benn goutte d'eau bu romb bu rombee rek mën na yàq koor gi bu ko defee nga def ndànk moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne wax ne wa baaligh fil istinshaq illa an takuna saayiman sallallahu alayhi wa sallam nee na nga sarax ndiku bu baax a baax waaye nag kii sarax ndiku bu baax a baax ak kii galax ndiku bu baax a baax mooy ki woorul mais boo wooree defal ndànk sallallahu alayhi wa sallam indi istisna illa an takuna saa'iman macha allah al mubalagatu fi l istinshaq xashata an tasila ila jawfi shay'un fi l ma fa yus fa yufsidu sawmahu allahu akbar kon mi ngi noonu ñaareel ba al qublatu qublatu is qad tathiru shahwata tajiru ila ifsaadi sawmi bi xurujil mazi awil jima xaysu tajidu kafaaratu allahu akbar dañ wax ne boo wooree na nga moytu moytu sa soxna di ko jege ba nga jël sa tuñ bi di ko teg ci lexam nanga ko moytu moytu ko mooy xublatu ngeen baal ñu ci wax ji ngeen baal ñu mooy moom mooy lu wolof di wax fóon fóon sa soxna nga moytu ko ci boo wooree parce que fóon mën na yee bànneex te bànneex bu yeewoo leneen mën na xew te bu leneen xewee koor ga yàqu na te da ngay kafaara te da ngay kafaara kon ñu moytu ko mooy ñaareel ba mooy tuñ ci lex ñu moytu ko ci sa diggante ak sa soxna moo tax li gën li gën li gën mooy bëccëgu weeru koor soreyoo ak soxna si dafay daal di gën waaw dafay dal di gën parce que bu guddee yàgg moom lu ne charia may na la ko waaye nag bëccëgu weeru koor li gën mooy nga sori ko mooy al mooy ngeen baal mooy fóon yi nga xamante ne dañ ko sib ci koor sibeel gi mën na dugg ci yàq koor mën na ci dugg mën na yee li yàq koor moo tax ay acte la yoo xam ne na ko moytu bi ci des mooy idaamatu nazri bi shahwati ila zawjati mooy di saxal sa bët ci sa soxna di ko xool xool bu jéggi dee nga moytu ko nga moytu ko nga moytu ko yii nag bu la ko waxee yàqul koor waaye mën na yee mën na yee mën na indi mën na la yóbbee ci koor gu yàqu mën na la yóbbee ci koor gu yàqu mooy idaamatu nazri bi shahwati ila zawjati mooy di xool xool gu metti sa soxna di ko xool di ko contempler di ko xool loolu baaxul moytu ko ci weeru koor bëccëgu weeru koor ba ca des ñeenteel ba al fikru fi sha'ni jima fi sha'ni jama xoolal mooy toog di xalaat di xalaat ak di fàttaliku mbiru sëy moytu ko ci weeru koor mën na la yee mën na yee yu bari mën na yee yu yàq koor moytu ko di xalaat mbirum sëy nekk ba ngay nekk ak sa soxna ca kaw lal ba bu guddee bëccëgu cëggu weeru koor toog xalaat bi nga koy xalaat mën na yàq koor moytu ko nanga ko moytu ñoo ngi ci yi nu sib ci bëccëgu weeru koor bi ci des juróomeel ba mooy alamsu bil yeddi lil marati aw mubasharatuha bil jasadi ak jël sa yaram sa loxo laal sa loxo di ko laal sa soxna ci yaramam laal bi nga koy laal sa soxna ci yaramam mën na yee bànneex te bànneex bu yeewoo leneen mën na xew te bu leneen xewee koor ga yàqu na laal bi ngay laal sa soxna sa yaram ak yaramam sa loxo ak loxoom sa loxo ak yaramam loolu mën na yee bànneex bànneex bu yeewoo leneen mën na xew bu leneen xewee koor ga dafay daldi yàqu tabaarakallah bi ci des juróom-benneel ba madu li ilki xashata an yatasharraba baadu ajzai minhu ilal xalq mooy ay singom singom wala ay tàngal yu dëgër yooyu nga xamante ne mën nga ko mën nga ko yëyal xale ba mu nooy ba jox ko dañuy ragal singom walla lu dëgër ñam bu dëgër boo xam ne xale xale mënu ko yëy dañuy ragal nga yëyal ko ko boo ko yéyelee am lu mën a romb am lu mën a romb bu rombee rek koor ga dafay daal di yàqu ndax ñam la te ñam bu yeggee ci biir rek koor ga yàqu na tabaarakallah mooy jël ay singom wala jël yu demee ni ay tàngal yu dëgër yooyu nga xamante ne xale mënu ko yëy nga koy yéyal loolu dañ ko sib parce que am na loo xam ne bu rombee rek dafay daal di yàq koor tabaarakallah bi ci des mooy almadmadatu li xayri wudu aw xaajatin tadu ilayha waaw léegi bi ci des mooy jël tuuti soos soos di xool ndax saf naam déet ci toggkat bi aji toggkat bi di xool ndax saf naam déet xool boobu nga koy xool di ko mos zawqul xidri awi taami zawqul xidri awi taami mooy mos bi ngay mos mos bi ngay mos ñam di seet ndax saf na wala saful moom it dañ ko sib parce que bu amee lu romb rek koor ga dafay daal di yàqu te bu koor ga yàqoo tabaarakalla mooy jur loolu bi ci des mooy al iktixaalu fi awali nahaari wala baax bihi axirihi mooy di tusngalu tusngalu ci suba gi yooyu yëpp dafay nekk li nga xamante ne dañ ko sib ci koor tusngalu suba gi waaye ngoon gi wax nañu ne daganal nañ ko yàlla rek a xam tabaarakallah kon ñu jàpp loolu bàyyi ko suñu xel yii mooy yi nga xamante ne moom mooy yi nu sib ci koor mooy makruhaati sow mi araamul nag araamul nag dañ ko sit waaye cibeel mooy dugg ci lu ñu araamal mooy acte à éviter en période de jeûne seen émission gi noonu maa sopp rasulillahi tabaarakalaa seen sit bu mag boobu ñu koy wax fkr 92 point com te ko doon defal mooy seen mbokk seen soppe xaadim seen assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara